nga tax parce que à la les qui doivent se faire à la base moom lañ deful parce que tey jii nii bu fekkee benn espace bu nekkoon foofu bien vrai que lobby neen seen suufu maam la woon. Mhm. suuf cosaan la woon. mais y' a pas y' a pas eu de consultation à la base par rapport à l' à la régularisation même du site. parce que site bi xëy ñu tëb tëb tëb jox ko gendarmerie. Mhm. normalement y' eu des procédures de régularisation au niveau des impôts tey ces procédures là bu ñu koy def dañuy dinañ consulter l'urbanisme nañ consulter le CARES par rapport à la destination de la parcelle mhm. maanaam par rapport ak projet ba ñu fa bëgg a jëm mais par dans cette dans cette rubrique de procédure la fàtte def moom mooy consulter la commune mhm. maanaam les les les lébu. à la base mais est-ce que aussi du du maanaam rek dernière goutte d'eau bi nga xam ne moom moo euh, atterrir ci vase bi parce que euh, communauté boobu noonu euh, dañoo yàgg jël sur ñoom depuis que Dakar est Dakar di màgg souvent dañuy grignoter ci li nga xam ne mooy seen assiette di ko di ko joxe tey jii nii xëy na warul problème mais xëy lu mujj la rek loo xam ne moom moom moo indi affaire yi. yaa ngi naan dañoo grignoter ci seen assiette. parce que même par rapport à par rapport à nature juridique même des terrains. Mhm. loolu lu ñu war a mën a xoolaat la parce que tey boo xoolee dañ naan la code de l' état mooy zone yi nga xam ne état moo ko immatriculé moomal ko boppam di ko attribué. Mhm. tey jii nii ñooy la la la loi 64 46 relative au domaine national li nga xam ne askan bi yëpp ñoo ko bokk tey bu ñu nee suufu lébu nature juridique la am y en a bu donc ça c'est droit bi ñu ci mun a am moom mooy l'usufruit pratiquement yaa ko doon bay wala yaa ko doon surveiller mais de manière juridique ñoom amuñu benn nature benn benn benn benn benn nature juridique mhm. qui ga qui garantit et qui sécurise même foncier là loolu nag dafa nekkoon la nga xam ne bon vraiment ay erreur la nga xam ne daal le passé moo ñu topp ba tey jii nii